jaajëfal leen ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun mbokk internet bu ci m TV Sénégal jaa ngeen jëf ci teewlu bi. gërëm nañ leen sant leen ci ànd bi ngeen ànd ak seen chaine bile di 5M TV Sénégal xibaar yi la ca gën a fës Maimouna Ndour journaliste bile nekk itam njiitu 7TV moom nag démb dañu ko rek daal di gaañ dóor ko dóor yu metti ginnaaw googe sax ñu daw yóbbu ko rek ca urgence moom nag may Maimouna Ndour mbir mi ma nga xewee ca buntu këram ca émission ba nga xam ni amaloon na ko ak kile nag di Farba Ngom député bi ñu ni kon ba mu ñibbee la fekk ay agresseur ca buntu këram ci lañ ko daal di dóor ba mu sonn nag mu tuur fa deret bu bare moo waral kon ñu yóbbu ko ca urgence ginnaaw gi nag moom agression bi ña ko def ñu ngi leen di topp ngir mën xool enquête bi fu muy daal di mujjee. ak ñen ñoo def lu ñu mel waaye la ko sooxe rek bokk na ci kon émission ba nga xam ni doon na ko amal foofee ca 7TV ak député bile di far ba Ngom